dënn yi ak jéye yu defati département Bignona faat na fa ñeent jamono yi ci dina Madina Wandifa mu faat élève bu nekkoon ci classe troisième kàddu yi Karim Wade ci euh, li nga xamante ni mooy ak wooteeg wàllu ñeel l'armée France ci fippu ga woon ci Sénégal 27 euh, juin Robert Bourgi euh, dëggal ni woo na ko moom doomu njiitu réew mi euh, Karim Wade di lu safaanoo kon ak lay jege ñaaleem defoon weddi yéenekaay ba ko jibaloon ca ca France Robert Bourgi gannaaw ay leeralam ak RFM LD di Ligue démocratique partie bi professeur Abdoulaye Bathily jiite di sàkku ci Karim Wade mu tekki nombal tànkam kuréel ak ceyit xel xeltuy Sénégal di intellectuel yi ñoom yamuñ ca démission gi ñu ngay koy sàkk ñu jaarale ko ci kanamu ëttu àtte bu kaw bi haute cour de justice jamono yi jege ñaale Idrissa Seck ñoom ne leerali Robert Bourgi daa dëggal la Idrissa Seck waxoon ne mësul dajeeg benn ndaw Abdoulaye Wade yëgul tinul mbiram ticket présidentiel comité directeur parti démocratique sénégalais nag woo nañu ko ci lu jàmp tey tàkkusaan bu jotee mu ñaareel bi yoon ñu amal ndaje ci weer wenn wi xibaar yi bokk na ci tey jii gëstu bu ñu leen defal ci njaayum garab yi ci mbedd mi ak loraange yu muy jural askan wi boobaak léegi nag docteur yaa ngi wax pharmacien yi naka noonu waaye am na ñu ba tey seen ak dëgër bopp topp tax ñuy topp garab yooyu nga xamante ni du jur lu may loraange ci ñoom ku ca wut saafara it safaan nga cee am dig loraange jàngoro Aliou Diassé ci machine bi. Assane Gueye ñeent ñu faatu ca Tobor ak Jilakunt ca département Bignona dënnu yi ñoo defati jéey yu ni mel Abdoulaye Samb dëkku Tobor ak Jilakoon askan yi fa yeewoo ci tiis ak nakar la ñu nekkee ñaari dëkk yooyu nekk ci département Bignona seen diggante ak Ziguinchor wala a toll ci fukk jàpp fukk ak ñaari kilomètre ñeenti nit bokk ci ñoom ñaari xale ñoom la dënn bi daal di fàtt waxtu bi nga xamante ne mu ngi doon taw ci boobu zone taw boobu sax daanaka dafa doon ànd ak tonnerre yu bëree bëri d'abord ci Tobor ñaari ndaw ñoo xamante ñoo bokk ndey ak baay ñoom la dënn bi faat ndax dënn boobu dafa daanu ci seen kër gi waxtu bi nga xamante ne mu ngi doon taw ñaar ñi nag daanaka foofu la ñu jot a faatu laata ñu leen di yóbbu ci poste de santé bu seen dëkk ci wetu foofu ci jilaakoon di dëkk bi digganteem ak to war a tollu ci ñaari kilomètre ñaari xale ñoom ñoo jot faatu foofu foofu tamit benn bi moom moo daanu ci kër gi nga xamante ne foofu la ñu dëkk ñoom nag daanaka def leen lakk mu mel ni nag dënn boobu dafa faat ñeenti ñaari dëkk yooyu amuñu paratonnerre askan bi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo ci ñaari dëkk yooyu ñoom ñu ngi laajatee ji moo di ndimbal bu bàyyeekoo ci kilifa yi wax la ne nag daanaka fi ci diwaan bi bariwul ay dëkk yi nga xamante am nañu li envoyé par tonnerre Abdoulaye Sambou Ziguinchor RFM. jërëjëf Abdoulaye loraange genn gi la dënnu yi def ca Medina Wandif diwaanu Sédhiou ndaw lu fa doon def classe troisième fukk ak juróom-ñaar ci la toll woon jamono yi mu yoroon téléphone bay téléphoné la dënnu ba dal ci kaw mu faatu Bakary Konté. fii ci diwaanu Sédhiou dënnu yi ñu ngi continuer di rey ndaxte sax am na kenn koo xamante ne mu ngi am 17 ans ñu koy woy Lassana Manga mu nekk élève ci classe bu troisième moom daa jot na faatu loolu nag mu ngi doon wuyu benn appel téléphonique mango nag si benn taatu mango nag la toogoon loolu nag depuis mu am si la daal donni daanu ci kawam fu mu daanwee nag foofu sa faatu kenn koo xamante ne mu ngi koy jegewoon nekk xaritam kooku nag dafa xam si saa si ñi daal ko évacué si district sanitaire bu Bounkiling nawet bi nag depuis mu door ba léegi ñetti nit ñoo jotu faatu fii si diwaanu Pakao ñoom ñëpp ay téléphone portable lañu doon utiliser si nawet bu ñu nekk nii tiit ak jaaxle kese si population yi ñoom nag ñi ngi réclamer chaque jour bés bu nekk ñu ne lu ñu bëgg nag ñi defal leen nee na ay paratonnerre loolu nag euh, ñu ne ci région bi yëpp la ñu bëgg ñu samp ko fa bu amee nag population yi mën a ñu mën a aar population yi ñu ne loolu nag bu amul boo muy ñu dina am ñeneen ñoo xamante ne dinañ faatu si euh, dënnu yi Bakary Konte Sédhiou rajo Futur Media. jërëjëf Bakary fàttali kon mbokk yi rek moytu gi jëm ci wàllu seelu ci taatu garab euh, bu fekkee ni mu ngi taw wala yi téléphoné wala gàddu lu ci mel ni rajo yeneen waaye it euh, kilifa yi bu nu leen mënee baaxee yooyee askan ngir paratonnerre yi mate fu ci bari Sénégal it euh, tan am conseil municipal bu Matam moom dafa fas yéene gàddul boppam mbir yi ñàkkam ca ak diwaan nga ak it mbënd mi fas na ci wàllu woowu taxawal li nga xamante ni mooy ay pexe di système beneen jëm ci anok mbalit mi waaye it far bor yi ngir station pompage bay ñoddi ndoxi taw ya mën a wéyaat ki yëngoom RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. ñuy waajal wotey présidentielle 2012 mbër yi seenub lim di yokk ba ca mujj wàcc ci arène bi professeur Moustapha Samb bu sesti parti bi di seen askan wi ñoo ko ngemb démb ci janook taskatu xibaar yi la ñu ko fësal mat leen seen ma nga fa woon. parti bi di seen askan fas yéene bokk ci élection présidentielle yu 2012 professeur Moustapha Samb di jàngalekat ci sesti mooy seen candidat président seen askan Ababacar Gueye di wax ci tëralin yu ñu tànnee seen njiit. ki nga xam ne jiitewul parti. nekk ca parti ba nekk candidat parti ba am jom bi ñuy wax am na ngor am na jomb am na jom euh, di xeexal réewam ay ati at. candidat bu bees bi di wax ci tëralin yu mu namm pour Sénégal. remettre le Sénégal ne peut pas décliner un programme politique. tegaat Sénégal ci yoon euh, defi jàmm joxaat sénégalais yi gëm-gëm seen bopp euh, bi ñu nekkoon xam loo leen mbir mi du politique rek liggéey am na ngor am na ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk. sénégalais. Samb di sakk ñu wàññi caution bi ñuy laaj ngir mën a déposer candidature. les moyens il faut les chercher. caution bi métti na pour ñëpp euh, suñu amee caution bi euh, ñu dem suñu amul caution bi euh, ñu seet feneen waaye bu ñu ko waññi woon dina dina gën. si on n'a pas la caution ah, l'impossible nul n'est parti bi di seen askan noppi na ngir lëkkaloo ak yeneen parti moo xam ñi ci pouvoir bi wala ñi ci kujje gi ci kàddu Moustapha Samb Wade bu présenté woo 2012 ngir jox nguur gi keneen moo tax. soxna Madeleine Sène Robert Bourgi dëggal ni Karim woo ko keroog ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru citoyen bi Sénégal ay fipp am ci ndakaaru rawatina yenn ci ñaxtu euh, muy sàkku ci moom ak taxawu ñeel l'armée France ba ca kilifa yi moomum réew xelam demoon ci Nicolas Sarkozy ak ñeneen Robert Bourgi lankal ko lu ni mel dëggal na ko ak RFM ñu déglu ko moom Robert Bourgi ci jokkoom ca Paris ak euh, El Hadj Alassane Samba Diop ci kanam tuuti mu teew Robert Bourgi ci kàddu yi nga xamante ni euh, dëggal na ko jëm ci Karim Wade ak woote gu mu amal jëm ci moom ngir ak wàllug taxawu ñeel l'armée France. oo na ma damay oo mu damay ko wax déedéet du ma ko wax mukk voilà. yow yow mi ñu woon est que loolu am na. dafa wax ak man mu wax ma affaire bi danger public. Euh, nga wax suñu bopp fi à Paris armée française ñëw dama ko wax déedéet Karim du ma ko wax mukk non catégorique. c'est une affaire sénégalo-sénégalaise. et c'est terminé et l'armée française n'interviendra pas comme ça. est-ce que Karim Wade bi mu la wooyee nee na dafa bëgg waxtaan ak xaritam yi dafa bëggoon waxtaan ak euh, président Sarkozy. Euh, non euh, ma wax ak Sarkozy ma wax ak monsieur Guéant et autres dama nanguwuma c'est tout nanguwuma c'est c'est am na journaux yu bind fii nee nañu yow tase nga ak Idriss Seck fële ca Paris waxtaan ngeen ci mbirum ticket présidentiel bi indoon jéew yi fii ci réew mi. gis naa. damay wax ak Idrissa Seck à Paris ci hôtel bi ci café ak ci sama bureau damay waxtaan ak Idrissa Seck Idrissa Seck sama morom sama mbokk la sama rakka damay wax ak Macky Sall sama rakka sama mbokk sama morom wax na ak Tanor sama rakka sama mbokk sama morom voilà. gannaaw ay kàddoom moom Robert Bourgi arène politique bi ku nekk na ko gisee am na ca ñu sàkku démission bu Karim Wade ñu mel ni waa Ligue démocratique porte parole ba Moussa Sarr. dañu ne président de la république dafa war a jël kaddu waxtaan ak sénégalais yi ne leen moom mënul nekk candidat élection présidentielle 2012 loi bi nanguwu ko atam également moyuñ ko pour mu nekk candidat élection présidentielle loolu moo gën a am solo mu oo caméra Sénégal ak télévision internationale ñu filmé ñu pour wane Sénégal am na dialogue loolu li démocratique nanguwoo ko dugul ci dialogue boobu moo tax ñun ñu ngeen ñaan waa mouvement du 23 juin ñu gën a véritablement def unité seen biir consolider seen unité mais également ñu moytu Ablaye Wade parce que tey dialogue ak Ablaye Wade amul benn solo li gën a am solo mooy mu respecter loi Sénégal ci beneen fan dégg nañ ne Karim Wade dafa oote armée française pour mu ñëw Sénégal le juin pour intervenir accusation boobu dafa graaw te moo tax ñu ngi ñaan Karim mu démissionné ci gouvernement bi parce que lu mu woone mooy respecter sénégalais yi respecter armée nationale Sénégal donc moom amatu place ci gouvernement Sénégal dafa war a immédiatement ñoom dañoo gis ne Karim Wade la mu wanee doxee ko dafay rek tekki amul benn xam-xam bu yoreem réew di culture d'état ci weneen wàll it farandoo jegeñaale Idrissa Seck na kàddu yu maire cees ba fi ne woon wàllu ticket présidentiel yëgul tinul mos dajeek ndaw ak Abdoulaye Wade kenn ci yooyu jegeñaale Idrissa Seck Oumar Sarr ak Georges ci Diop RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. Omar Sarr dégg ngeen ko ci xibaar yi wees Aliou Diassé maa ngi lay jégalu maay laaj ay éléments yu teewul kooku moom nangu naa ko kon ñu wéy ba tey ci wàllu éléments yi waaye ci wàllu réaction ak bu kuréel ak wayal xeltuy Sénégal cercle des intellectuels ñoom Karim Wade ci boppam yemuñ mu bàyyi waaye nan ko jaarale ci kanamu ëttuwaate bu kawe bi ñu déglu ci professeur Malick Ndiaye. lettre bi ñëpp ñi ciy nekk di discuter. waa ji nax na leen parce que lettre bi dafa am lu mu wund mooy nëbb crime de haute trahison bi nga xam ne moom moo feeñ léegi ñaareel bi mooy waxtaan bi nga xam ne ay patriote dem nañu seeti président de la république pour wax ko ak moom maanaam ñu koy wax groupe des six waxtaan boobu amatul benn solo tant que président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom la nit ñi faloon dindiwul tekki ndombo tànku Karim Wade comme ministre d'état suspendre ko ci fonction am yépp yu mu am ci dëkk bi ba pare normalement dañ ko war a mettre aux arrêts de rigueur et ñu def benn enquête boo xam ne le procureur de la République sur instruction du chef de l'État moo ko war a ubbi ba pare nag Karim Wade ñu yóbbu ko pour haute trahison à la haute cour de justice waaye nekk fi di discuter ay lettres ouvertes ak nekk fi di wax ay mbiru ba xam dañuy def gouvernement d'union wala pas d'union amul sens parce que démarche yooyu yëpp dafay nëbb li nga xam ne moom moo gën a graaw fii à savoir que un membre du gouvernement agissant en son propre nom a usurpé des fonctions et que donc nañu démettre immédiatement Karim Wade mettre ko arrêts ba pare nag ñu daal di jàkkaarloo ak li nga xam ne moom la réew mi toll tey parce que bu fekkee ne ku ne ñoxor njaay rek ñoxor ga nga jóg sa téléphone naan na armée française intervenir loolu danañ ci dellusiwaat. xibaar yi. ci RFM. ñu yegg seeg yéen ci gëstu bi nu jagleel wàllu paju mi Sénégal ak euh, garab yi ñuy jaay ci mbedd mi mbon gu mu àndal waaye ñenn ñi nga xamante ni ba tey jii euh, dañu koy jëfandikoo di faj seen bopp dëddu médecin yi ca ku ne xam nga ne loole loolaa ngi la leen di julal am na ci pharmacien ki médecin yu gis nekk xaru la Georges de Diop. li ci tane wala aspirine wala bi tey ab bijoutier la dara jotu ko waaye leeral ni yenn saay day jéem faj boppam